sale nga koy defal. waaw après ñu jënd ay sondeel taal. defal ko woyal ko happy birthday. birthday te moom tamit la dafa ñàkk ki ñaan macha allah. Mm, mm. Euh, euh, tàmbali li nga xam ni mooy euh, recette tay bi. Mm. tey gâteau salé la andi nag ci ànd ak li nga xamante. Mhm. def ci gâteau bi. waaw ak benn sondeel. waaw mu yóbbu ko Kaolack jox ko Baye Ciss. Eh, ñoo est-ce que duñu ànd sax <laughs> mbaa est-ce que naa jox gâteau de. gâteau <laughs> waaw téeméer gâteau bi yëpp jox ko. mbaa est-ce que duñu ànd yóbbul ko lépp expliqué dara. <laughs> est-ce que ñu ànd jël lépp yóbbu ko man kese man <laughs> kese non man kese man kese maay dem ci euh, suñu papa Baye Ciss bërki dem yëngal na euh, fi nga xamee ni mooy euh, Kaolack c'était le 15 décembre ci taxawaay bu rafet ak niko ko jeunesse bu Kaolack woolo donc moom ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla na suñu borom yàggal taxawaayam et puis rendez-vous ce week-end à ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak tal ak fekke xam nga ñoom ñu baax ñooñu moom ñaanal leen tal rek waaw ak tal ak fekkee El Hadj da ci am solo de Baye Cheikh tal ak fekkee rek lañ koy ñaanal El Hadj Baye daal boo ci nekkee Baye Cheikh mm-hmm. te yàlla mane la gan mm-hmm. danga koy delloo fi nga dëkk mm-hmm. te moom loolu rek la def li ko yàlla mane gan delloo na fex na ba delloo ko jeunesse ba delloo ko groupement yi ba pare delloo ko réewam ànd ak chef d'état nangoo liggéey te loolu rek moo am solo bay Cheikh wallaay mbay wallaay mbay Laye mbay donc ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, euh, Baye Ciss ak euh, ñamu àndal ca Kaolack donc c'est parti pour la ngato waaw Baye Cheikh fi mu ne nii tàmbali nañ maa ngi doon remplir li nga xam ne mooy samay bool de farine déjà nii jël naa benn nen def fii li ñuy wax rek la plupart du temps nen boo koy utiliser bul ñëw directement rek def ko ci li nga xam ni mooy appareil bi ngay defar danga koy def toujours ci benn ramequin doo ko ci sotti xool ndax frais na ou pas parce que daf am solo fi mu ne nii def naa deux. tey nag quatre laay utiliser bi mooy euh, troisième bi ma ñëw euh, ak quatrième bi voilà mën naa teg ni daal di sotti fii yëpp su ma paree directement rek damay jël sama benn benn fouet commencé di travailler li nga xam ne mooy œuf yi gis nga nii rek buñ ko commencé mélanger nag da euh, nga gis ni nen bi ak blanc bi mélangé na bu baax. directement rek dañuy jël li nga xam ni mooy suñu lait concentré non sucré moom la ñuy jël directement ñu daal di ko ci rajouter ci nen bi voilà def benn mélange bu homogène meew bi ak li nga xam ne mooy euh, nen bi gis na nii nag su ma paree directement damay jël sama benn sachet levure chimique ma def ko ci moom tamit. nga nii bu ñuy sottee levure bi ba pare ñu mélanger mu bañ a def euh, grumeau directement rek ñu ngi fi nii am nañu mélange levure lait concentré non sucré ak euh, nen damay ñëw directement jël li nga xam ne mooy euh, farine bi daal di ciy def ñaari boolu farine laay utiliser Baye Cheikh mooy équivalent wu 250 grammes farine gis nga nii rek ñu yeggali mélange bi. gis nga nii nag pendant ma koy euh, remuer gis nga fii dama am beurre bocage euh, moom laa jël def ko mu fond ci li nga xam ne mooy poêle bi damay ñëw euh, directement daal di ko ci sotti parce que moom mooy permettre gâteau bi dafay gën a nooy soo koy lekk doo ci am benn problème voilà ñu sotti beurre bi daal di mélange bi gis nga nii rek appareil bi nii lay mel du doon benn pâte bu compacte gis nga nii rek bu ñu ko defee nii nag ba am résultat bi damay ñëw jël li nga xam ni mooy euh, maïs doux bi daal di ciy def daal di jël li nga xam ne aussi mooy suñuy saucisse yoo xamante ni tamit dañu ko daggate daal di sotti voilà suñu paree aussi de l'autre côté am nañu condition ñu daal di ciy sotti suñu paree dañuy jëloo tamit suñuy épices daal di ciy def comme te gâteau salé la ñu daal def aussi un peu de sel mën nañu teg fouet bi daal di jël suñu benn cuillère daal di yeggali li nga xam ni mooy mélange bi gis nga ni nag suñu ko mélangé nii ba pare directement day fekk nga préchauffer sa four à cent quatre 180 degrés boo préchauffé four ba pare nag da ngay jël sa benn moule boo xam ne mooy dem ci four bi nga semiser ko semiser nag da ngay def bëru bocage diw ko ci ba mu ba mu wër nga daal di jël tuuti farine saupoudré ko ci yëngal ko ci ba mu mélangé wu lii mooy waral gâteau bi su duggee ci biir four bi buy génn du kole ñu ñëw rek directement sotti ci li nga xam ni mooy euh, appareil bi ñu defar. waaw da nga ko ciy mélanger gis nga nii nag buñ ko mélanger nii ba pare dañuy ñëw directement daal di jël euh, li nga xam ne mooy euh, suñu fromage gruyère daal di saupoudre ci kaw ci def fromage bu doy voilà mën nañ ci def euh, lépp voilà bu ñu paree nag ñu terminer ak li nga xamante ne mooy persil bi ñu haché ba pare dañuy ñëw directement rek def ci persil bi gis nga nii nag euh, Baye Cheikh fekk euh, euh, taaloon nañu four bi comme ni ma ko waxee woon sànq préchauffé ko à 180 degrés booy dugal nag li nga xam ni mooy keek bi da nga koy wàññi ba mu des tuuti nga daal di jël tranquillement sa benn sa moule bi attention voilà gis nga nii rek ñu bàyyi ko ci 20 à vingt 25 minutes mu daal di ñor ci kanam tuuti nag ñu génnee ko euh, daal di koy décorer ak li nga xamante ne nii mooy euh, suñu carotte di gis nga bàyyi cheikh carotte yi dama ko jël xolli carotte bi daal di jël sama benn emporte pièce rek euh, moom laa doon def nii di ko découper nii attention gis nga nii rek di ko dagg en lamine ci ka waa gis nga nii ci kanam tuuti nag dañuy jël li nga xamante ne mooy gato bi fekk mu am benn forme ñu jël ko jël carotte bi décorer ko ba mu rafet ba doon benn gâteau salé boo xamante ne ni mën nañ ko utiliser ci biir ci euh, fête bi euh, pour déguster wala mën na nekk sax euh, pour amuse-bouche wala plateau salé rek mën nga ko ci def ma chère donc mm. c'est ça et on va déguster dans quelques minutes. inchallah euh, puisque euh, ngato bi euh, yaa ngi ko togg mu mu salé ak beurre bocage.